bismillah bismillah enen en beltima hen en beltima hen en torima allah ene laaɗo lena bisimilla enen en beltima hen en torima allah ya allah okkuɓe lena ñuññan suñu bonon yalla suñu bonon allah okkaɓe cellal yalla

nee na ke tamit e yimɓe ɓe mo ardiɓe fof nee na booleki ngeen anndal kala ko ɓe paala nin ngeen ñaan e, ngeen sohlanen e, e, e sengo moƴƴereeji sungal lu baa yo allah waɗanɓe ɗum sun kono defal len enen kala en beltima ñun daara o jokkinani daaraji ɓe e juuɗe loho kala ko moƴƴata e daara he ɗum mboɗen bo xam ne limo baax enen enen paala ñun ko bogi ñun colli ay ay yi ñun colli ay yere yi ay pour taalibe xale yi ñu to ñu ko soxla parce que ne ñu ngi ñu bëggal ñu defal ñu ko ah ñu ñu ñaan suñu borom nga defal ñu ko e ñu xale yi ñu ñaan suñu borom loolu ah, e wa salli ala muhammad comme lu mu leen wax daal loolu la incha allah ba tey ñu ngi di jëlaat daara bi di leen ko dénkaat bu baax a baax ndax eh, yéen ñoo tax ñu toog waaw ndax euh, loo bëgg a jàng-jàng di fekkee amoo ñu lay jàppale mënoo jàng waaw loolu nag incha allah ñu ngi ñaan yàlla moom bu nga xamante yéen ñi nga am yéen si daara yi yal na leen yàlla fayal boppam barke alquranil karim ndax yàlla attan na ko te mun na ko te alquran mun na faj lu ne te mun na àggal nit fu mu bëgg a àgg ñoo ko xam yal na leen yàlla àggale foofu barke alquranil karim gis naa seen yéene yi gis naa seen liggéey gis naa seen taxawaay incha allah ñu daara bi tamit mu ngi soxla dimbal bu baax ay wàllu basam ay wàllu yére ay wàllu lépp incha allah bu soobee yàlla indi bi soo ngeen ko amee incha allah bu soobee yàlla jërë ngeen jëf allah jërëjëf incha allah jërëjëf incha allah jërëjëf incha allah ni ngeen ko gisee noonu euh, des jeunes talibés nga xamante ni moo di le groupe de Ngaaka Blindé ñoo leen di defal journée joxe ndogu nga gis noonu talibé yu toog ñu leen nar a jox ndogu ànd on vous rappelle que vous êtes direct sur Dakar buuma soxna soxna gi jël kii ñëw leen ñëw leen yéen ñëpp ñëw leen bu leen taxaw di fuume ñëw leen saa bool ma ko niital nii waaye niital nii jaayoo Champion Alo, alo. Nen gaaju be pare. Kau gimana? Doucement rek doucement rek doucement rek. Ande. tuuti mu tuur ci tàngoor. xoolal jërë na tuur jërë na tuur waaw gaawal gaawal bu jeexee rek ngay neex. mu gaaw waaye mu gaaw. mënoo ko si sotti benn yoon nag mu dem wala. jërëjëf jërëjëf Nangayeex moom Bak, may tong lang sa loob. Kaya na jot na.

boy ñëpp boy buñ toog amul amul sabu amadi amadi amadi